asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal uh, te indiwaatal leen seen yeneen i xibaaru ak Actunet comme d'habitude lekk ma ci daal di ànd ak Omar Diop ziar naa Ndiaye maa ngi lay fay di la siyaare di amaan mbégte di jaaxaarloo ak yow di jaaxaarloo ak internet yi ngir waxtaanee lépp loo xamante ne nii xew-xew la wala lépp loo xamante ne nii xibaar la boo indi rek ñu daal di ciy débattre daal di ciy waxtaan. noonu la demee Omar bi jiitu ci xibaar yi tey bokk na ci disparition wu jaari Sow boobu ba tey nag ñi ñaa ngi ci uh, nekk di ko méttiwul uh, sénégalais yaa ngi koy méttiwul nguur gi tamit ñoo ngi def seen kéemtulaay uh, kàttam ngir recherche ñu gàddu koy gaawal xam Diary Sow fan la féete waaye ab benn xaritam moo yëg na ni le 4 janvier bi passé ñoom ñaar ñoo bokkoon métro foofu noonu ci Paris ce qui signifie que jóge woon na vacance ca diwaanu Toulouse ba ñëwoon ci Paris xaritam bi loolu daal la daal di témoigner nee na ñoom ñaax ñoo dendoon côte à di waxtaan ba ni jaari saw wàccee daal di koy bàyyi moom ci métro bi mu daal di jubal. waaw yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne nii itamit lu am solo la parce que ay leeral la yoo xamante ne nii ñu bëri ci askan wi soxla nañu ko ñu bëri ci famille jaari saw itamit soxla nañu ko mu nekk loo xamante ne nii mën nañu ni sax. problème d'état la parce que état bi moom moo ko fi jëlee daal di koy yóbbu pour mu jàngi bu jékki-jékkee nag ñu ne dafa daal di te dina nekk loo xamante ne nii ñëpp ci ñu ciy dugal seen loxo ñu bari dinañ ci impliqué wu. mais problème la boo xamante ne nii ñeneen jàpp nañu ni Diary Sow lépp disparition mën nañu ne ci nafsoom la tegu parce que bu dee gis nañu ko mu jógee ci Toulouse ñëw ci diwaanu France mën na nekk itamit ñu ko ki kidnappé dañu ko xaar ba mu ñibbi si ñu jël ko yóbbu ko parce que loolu lépp mën na nekk mais liggéey la boo xamante ne nii du liggéey bu ndaw liggéey bu yaatu la boo xamante ne nii war nañu ko def pour retrouver ki nga xamante ne moom mooy Diary Sow parce que nag Amina li ci gën a daw yaram mooy famem yaayam boo dégloo témoignage yi nga xamante ni def na ko nee na mënul nelaw mënul tëj benn yoon bëtam parce que doomam rek lay xalaat doomam rek moo nekk ci xolam kon nañu ko dimbali. wëral ko doomam xool ci yan anam lañu ko mën a trouver tey ngalla ngir yàlla bu ñu koy gis yàlla nañu ko gis ak bakkan yàlla nañu ko gis mu ànd ak sagoom yàlla nañu ko gis ci ni mu gën a gaawee ndaxte way juróom sonn na torop amin yaa rabbi ba tax na section de recherche bu nekk ci diwaanu Paris nee nañu instant bi ñaari option la ñu amagum ndax gisaguñu benn piste boo xamante ne da leen di wax ni jaari saw moo ngi en danger donc nañ jàppagum ni à tout moment Diary Sow mën na réapparaître donc nañ naan yàlla rek buy ñëwaat mu ñëw ak bakkan ak jàmm ak salaam ndax way juróom bu jigéen jaaxle na trop ak mbokkam yëpp ba tax na dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro yoo lu ci ci vingt mille deux cent mille vaccins yoo xamante ni dafa war a jógee ci diwaanu Sine ñëw fii jamono ji nag ci waxtaan bi la ñu nekk xool naka la ñuy def ba daal di trouver accord ndax vaccin boobee euh, daal di nay efficace jusqu'à soixante seize pour cent ak lu topp. waaw nekk na loo xamante ne nii nag mu ngi jur polémique bu bari ci réew mi parce que même vidéo bi nga xamante ne nii moom mooy def buzz fi mu toll nii ci réseaux sociaux yi mooy homme bébé ko ne dañu lay piqûre. daw na bay bëgg dee parce que ñun ñëpp jàpp nañu ni piqûre yi nekkul loo xamante ni moom moo gën ci ñun. moo tax day xaw a day xaw a métti bu ñu koy dégg ñu ne dina ñëw ci Sénégal ñenn ñi ñu ngi koy xaarandi ak daw parce que ñu bari jàpp nañu ni wala ñu bari nee nañu bu piqûre yi ñëwee kenn du leen vacciner ñoom te jàpp nañu ni état bi dafay nekk pour askan bi dafay nekk pour dimbali ñu kon bu jërëjee ay vaccin daf ko indi parce que dafa bëgg ñu wér. daf ko indi parce que dafa bëgg ñu am tan jàpp nañu ni bu fekkoon luy lore la wala luy gaañe duñ ci xar seen tànk tubéy pour mu ñëw waaye lenn rek lañ leen di ñaan Amina bu fekkee li jëriñ askan wi la bu fekkee li fiy jëlee feebar bi la nu mu war a gën a gaawee rek war nañ cee taxaw mu gën a gaaw a ñëw bu fekkee ni demeewul noonu itamit nañ ko teg ci suuf te xam ni askan bi dañ leen a wóolu yaakaar leen moo tax ñu teg leen fii kon waruñu à chaque fois rek. di am ay xiiroo ak ay ŋaayoo suñu diggante ak ñoom parce que ñoom ak askan bi benn lañ ñu daal di koy wéyal at ki nga xamante ni moom moo di Gaston Mbengue Gaston Mbengue nag moom jamono ji xaar na ba sonn ndax combat yu mu tëgg bari na te benn mënu ci antu ndax jàngoro yow coronavirus bi 13 de galère ba ñu joxee seen xaalis mbëri signé ñoom kon contrat kenn ci ñoom mënul bëri ñoom seen liggéey taxaw liggéeyu mbëri tamit daal di taxaw ba tax na li nga xamante ni la doon uh, gam-gamle naan baax na ci làmb am déet muy huis clos Gaston Mbengue moom nee na pare na pour commencer ay combat ci huis uh, te Lac de Guiers lan koy daal waaw yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne nii tamit am na solo parce que nga toog onze mois yoo xamante ne nii liggéeyuloo Amina dafa metti bi corona duggee ci réew mi ba tey yaakaar nañu ni ñëpp a ngi liggéey sauf ñi nga xamante ne ñoom ñooy les promoteurs de lutte ak mbër yi te nekk na loo xamante ne nii lu metti la comme nag ñi ngi bëgg a solution huis clos nañu xool na ko la ci état bi di dugalee loxoom jàpp ci bu baax a baax ñu tëggal leen am huis clos moo xam dura télé lay doon. wala pay per view lay doon mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la même Gaston nag pare na pour tëggaat wala pare na pour amal combat bi nga xamante ni moom moo dox ci diggante Lac de Guiers numéro ak Eumeu Sène mu nekk combat revanche première bi dañoo nul deuxième bi Eumeu Sène daan ko ak beneen combat bi nga xamante ne ni combat espoir la combat de déclassement la diggante Diène Kaïré ak Modou Anta mu nekk combat yu neex bu ci état bi dugalee loxoom rek incha allahu rabbi Gaston ko te bu ci jógee Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier itamit pare na pour tëgg ko mais xoolal beneen combat espoir bu mu ci boole te loolu itamit avantage la huis am na mbër yu muy arrangé am na mbër yum dul arrangé mbër yi nga xamante ni ils populaire populaires on peut dire que leen parce que d'habitude fu ñu gëstoo dañuy gis seen mbooloo ci seen ginnaaw mais am na ci ay mbër yoo xamante ne ni ils sont pas populaires benn kaar duñ la ko indil ñooñu huis clos jarum leen di jarul ñu leen di laaj ndax arrangé na leen wala arrangé wu leen parce que du ñu yëkkati seen loxo mu ko ba dégg wooyu wuu rek la ñuy dégg kon huis clos yaakaar naa sax daf leen di xaw a dimbali ci benn côté ñu xool naka lañ koy arrangé ñu bëre parce que làmb la rek foo la acré te fi mu toll nii solution lañu ñu war ut te solution yi huis clos da cee bokk dañ ko wut kon. Amar nag koo gis muy bëree am na ay fans koo gis muy bëree rek bu dee dix personnes wala vingt sax dina ko indi ci arène bi ndax tey jii bu geesoo gis waa këram gis ñaari dëkkandoom euh, gis waa koñ ba gis ñi nga xamante ni ay mbokkam lañu donc tey jii wii kolo euh, duñ ne arrangé na benn mbër waaye dañ naan ko amul lu nga lu fa gën rek da ngay daal di jël euh, la fa sës ba tax na li nga xamante ni moom moo di piscine party bi xewoon ca diwaanu Almadi te yoon tegoon fa loxo lu toll ci 42 personnes ñenn ñi nekk ay femmes mariées ñeneen ñi nekkoon ay doomu fils à papa nee ñu sax am na ci koo xamante ni euh, dafa jóge woon Canada ñëw vacance ginnaaw ba leen yoon tegee loxo euh, ba tey ci liñ leen doon tere daal dinañ ko yë euh, maanaam liñ naan buñ la séntu ci gaalu xaj buñ la fekk nga cay lekk ñoom nag dañ leen naa fekk ñu cay lekk non seulement waaye testé nañ leen ci jàngoro yu coronavirus ba tax na kàcc ñoom amee nañu jàngoro yu coronavirus bi donc nguur amaat na dëgg ci seen kaw. yow kay Amina da nga ëpp na leen buum. ñii dinañ leen tëggee boor bu ne parce que ci jamonoy état d'urgence jamonoy couvre fa nga organiser sa piscine party yow doomu nit ku riche ki yow femme mariée bi yow mi nga xamante ne ni on peut dire que fii sa papa nga namuloo dara ak kenn koo xamante ni jógee na vacances Canada ñëw ngeen booloo nekk benn say organiser seen piscine party ba yoon fekk leen fa teg leen loxo mu nekk loo xamante ne amee naa dañu ne Sénégal rongoñu baadoo la moom mooy sim cere buur ñi fiy def à chaque fois boo xoolee bu njëkk ba ñoom bi fa kii di ñàkk bakkanam Iba Thiam ay doomu milliardaire sax jàpp nañ leen ku ci mel ni ñoom dam Amar ak ñu ñu mel bi itamit am na ci ay doomu borom doole ay doomu borom daraja yuñ ci jàppaat borom daraja yi ak borom doole yi nañu yaraat seeni ay doom amina yar sa doom du danga koy jox oto mu dawal wala nga di xaalis jox ko wala nga xool école bi cher nga dugal ko yar sa doom mooy nga xamal ko boppam mu xam mooy kan mu xam diineem xam boppam am lu muy rus am lu muy bañ ba noppi mën a jomm yenn yi lii bu ko nit amee mën nañ koo bañ a sikk mën nañ koo bañ a ŋàññi nee nañ la xale nga yàq ko nga yar ko après nga jàngal ko boo ko defee ci sa doom ala kulyaal du dëng wala bu dëngee itamit dëng dëng dëng te xale lay dëng te bu at boo yooyu weesoo de nekk ci li nga xamante ne ci nga ko yar ñàkk yar wala ñàkk tegu fi ñu war a tegu moom moo waral lii ñu jàpp leen ba ñent si ñoom amee ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus te dalay leer ni ay kaa communautaire lay doon te dina métti si ñoom ñu leen di ñaanal na suñu boroom soppi seen xel boole leen ay àndandoo yu baax ba ci ñoom kenn du xalaat loo xamante ne ni wala kenn du xalam ci sa xol ak sa xel lu koy nëxal comme ni nga ko waxee rek liñ naan musiba du yem ci bopp borom loolu waral na lu toll ci yoo xamante ni dañoo nekkoon en contact ak ñoom jamono ji ñu ngi ci hôpital bu Fann ñu daal di leen di téye di ñaan yàlla rek mu daal di leen fa jëlee nu mu gën a gaawee te ñu bàyyi wàcc xel yeneen jeunes yi ndax gis naa ne exemple boobu am nañ ko deux fois 2020 bi ñu jugee am nañu exemple boobu avec la mort de Iba Thiam cette fois ci nag ñu daal di koy amaat donc nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax man rawatina bu fekkante ne dañoo déclarer officiellement état d'urgence ba tax na dañ koy daal di jeexalee ak ki nga xamante ni moom moo di 10 000 problème euh, ginnaaw ba ñu gisee vidéo Instagram direct bi mu doon def euh, ci couvre-feu bi euh, boobu nag dikk daal di na ñëwoon ba ci koñ moo daal di koy jël si ñu daal di koy tëj 3 mois avec si yaayam daal di génn àdduna waaye nee nañu ki nga xamante ni moom moo di 10 000 problème ba mu wee ak juge bi da ko waatal ci yàlla ni ni ko waxuma la couvre sax waaye rassemblement rek fu mu gisati damay daw wéeri kon boog 10 problème pare na ci. Amina Ndiaye 10 000 problème li tax ñu jël si ko du vidéo sax Instagram direct bi mu doon def mais dañu ko gis ci benn vidéo mu ànd ak ndawu Médina yi ndaw ñi di taal pëna eh, di daw di dàqante ak ay policiers moom 10 000 problème gisuñu ko mu yor almet gisuñu ko mu taal pëna mais bokkoon na ci rassemblement boobu te dafa am loo xamante ni olof dafa ko wax nit ki bu ñu lay séntu ci gaalu xaj bu ñu la fa fekk. te 10 000 nekk na koo xamante ne ni nit ñi dañu koy déglu nit ñi dañu koy jox bopp malgré senegal nag wala àdduna sax laax ñëpp mënuñoo booloo bëgg la mais am nañu ko bëgg comme am nañu ko bañ bi ñu gisee vidéo boobu bi ñu xëyee ciñ ko ci lañ ko waroon jëli ci dem fekk ñu jàpp ko bi mu jàkkaarloo ak bi nag li mu ko wax yomb na rassemblement ak couvre-feu dootuñu ma ci gisee ti bari na ay rassemblement yoo xamante ne ni doon na fi am ay arme lañu bokk ay ñoo lànk yaanaa maar musuñu see gis dix mille kon mën nañu ne yooyu du yëfam mais dañu ne seytaane buy dugg ci nit day xool ci ni mu gën a gaawee mu duggee ci noonu ñu koy jaal nag yaayam ji nga xamante ne nii génn na àdduna di ko ñaanal suñu borom may ko xolu muñ suñu boroom may ko ndëgër laay yaayam jooju suñu borom jéggal ko woyofal suuf ci kawam ak mbooleem jullit yem fa fekk ak ñi ko fa fekk parce que nag muy man muy yow muy kii di seetaan ku ci nekk rek na bàyyi xel bësam te xam ni day yàgg rek wala mu gaaw mais day ñëw te buy ñëw yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla yàlla nañu fekk ci li nga xamante ne ni dina dalal xelu mbokk yi di ko ñaanalaat rek moom dix mille suñu borom mee ko xolu muñ mais ko ndëgër laayu ba foofu nga xamante ni fa la jógee mu bañ faa dellooti parce que ñaanaluñu ko ko te souhaité luñ ko ko loolu noonu ndax te vraiment ak quoi qu'on ku baax la ndax ñun fréquenté nañu ko. comme ni nga ko waxee rek Omar ah, wala ngaa xam yoon bi ngay jaax dafa fekk nga daal di daanu jógaat obstacle dafa baax ci yoon donc set fois ci wax na ni dootul bokk ci tiju nu mel euh, ñu koy jàll rek waajuram bu jigéen ndax ñàkk na lu diis tamit ñàkk na loo xamante ni benn yoon nga koy am sa àdduna yal na ko yàlla may xolu muñ di ko si gën ñi gaale di ñaanal waajuram bu jigéen boobu fu mu jëm gënal ko fi mu jógee euh, donc mbokk yi fi la ñu daal di yem ak yéen ci seen xibaaru Actunet yi jaajëfal leen te jox leen dig daje bu subaak jàmm incha allah